والشمس والقمر بحسبان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 Instagram ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu mel ni ñu ngi nekkoon ci suratu yasin muy saaru yasin muy saaru yasin di saaru am solo bu mag ñu waxoon ci ba waroon a commencé tey ci aaya 41 suñu borom di wax ni wa aayatul lahum anna xamal naa durriyatahum fil fulkil Mashhun. wa xalaqnaa lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha nuxriqhum fala sariixa lahum wala hum yunqaduun illa rahmatan minna wa mataan ila xiin pare woon nañ ci waxoon ci jant bi ak weer wi ni leen yàlla bindee ak niñ kiimaan yi ci nekk am na lu ñu junjoon tey nag mu commencé ci aaya 41 suñ borom subhaanahu wa taala di xibaar di wane kattanam ak dooleem ak man-manam moom borom bi subhaanahu wa ak ni tàggate géej gi ngir mu yenu bato yi ni mu tàggate géej gi ngir géej gi di yenu bato yi bato yi ni mu diisee nit ñi ci nekk yépp géej gi àndandoo di leen yenu te du suux luut bu soobee suñ borom subhaanahu wa taala loolu bokk na ci li ci jiitu sax mooy bato batob Seydina Nuux ba moom la juñu fii batob Seydina Nuux boobu nga xam ne nit ku am tey bato boobu moo tax nga nekk fi ndax ba yàlla bëggee alak waa dëkk ba ak waa àddina ba dafa wax ni dafa wax ni noox jëlal sa njaboot gi te lepp lu am ci kaw suuf nga jël ci lo xamne père lay doon nga duggal ko ci bato bi ak seen bagage yépp ngeen duggal ko ngeen dem su ngeen duggé ci bato ba dem man dina alak na na alak wa dëkk bi ba bato ba costé ba tegu ci géej ga rek wa xiital ma wastawa al judi yalla alak wa dëkk ba ñom ñëpp mu toroxal leen wa ñom ñëpp wa qiila ya ya ardu bla'i wa ya sama'u aqli'i wa xiital ma wastawa al judi suñ borom wax ak asamaan wax ak suuf kenn ku nekk mu wax la nga war a def yàlla alag waa dëkk ba moo tax kon ñe ñe desoon ca bato ba ñooña ñooy suñuy maam ba tey bu fekkoon boto ba bokkoon na ca lab ga rek kon nit dootul amati ci kaw suuf waaye moo moo wax moo wax waxul naxmil min kullin zawjayni isnayni maanaam kenn ku nekk jël ci peer ci rab yeeg mbay meeg yépp jël ci peer ngir mu mën a am tanaasul mën a continuer di jurante ndax doomu adama yi duñ perte bu boobaa nee na bu mu noonu yàlla waa dëkk ba sët yooyu fa desoon nag sëti Nuux yooyu fa desoon nga xam ne ñooy suñuy maam ñun tey ñoom ñooy suñu xeet ñoo tax ñun ñu am kon ñoo tax ñun ñu am moo tax mu ni wa ayatun lahum bokk na ci wa benn kiimaan lahum ñeel leen an naa ñun yàlla xamal naa gàddu na yaru nañ durriyatahum seen bàyyi ya durriyatahum ci arab seen sëdee lay fii waaye fii ci alxuraan seen bàyyi lay firi ak seen maam ya fil fulkil mashxuuni ca bato boobu nga xam dañ koo sëfoon ba mu fees dell ak ay bagage ak ay doomu aadama wa xalaq naa ñu bind lahum ñeel doomu aadama yi mim mislihi ci lu mel ni fëlku ba maayarkabuuna la ñuy war kon suñ borom moo leen defal ci géej gi lu ngeen di war ngir mucc ci lortaange géej gi waaye mu defal leen ci jéeri ji lu ngeen di war ngir dem ci fu sore sore fa ngeen doon dem foo xam te ni seeni tànk kese mënu ko woon mënu fa woon àgg loolu woon da di war ci dara kon ci géej gi kon mooy bato yi waaye ci jéeri ji nag li mu ci jul mooy gaynde mu astafurla li mu jul mooy mooy mooy mooy gileem gileem moo tax mu wax faneen ni afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat xanaa du gis gileem ni nga ko bind ni ko suñu borom bind ni mu kiimaanee gileem boo ko defoon dara tey boo toogoon fukki at ñëwaat dana la xàmmee dana la xàmmee ndax bu la xasee xàmmee jeex na gileem buy naan li muy naan gis ngeen ni muy te bu xasee naan ba pare mën naa toog ay weer du naanaat ndax la muy naan da koy denc ci biir ci biir bi am na benn benn benn citerne bu nekk ci biir boo xam ne fecc lay denc la muy naan gileem day gis régal comme ni ko doomu aadama day gisee gileem daa am kersa comme nit amee kersa day rus gileem day jam dem ci yalla subhanahu wa taala gilem lu ko nakari ci yalla la koy jàmbate mo tax day day yuhu di téen ci kaw day yuhu di téen ci kaw di jàmbat suñu borom subhanahu wa taala kon Gilem lu yéeme la gilem ñëw na ba ci yonente bi alayhi salatu wasalaam day ko ba agal, yonente bi daal di di wax wo borom gilem gi ni sa gilem gi day ne ma neena na ko sonal te do jox mu lek lu doy kon Gilem kon dafa kiimaane mo tax kon yalla di ci ko tuddu ci alquran wa khalaqna naa ñu bind lahum ñeel nit ñi mi mislihi ci lu melni ci jéeri yi nag maayaar ka bona lu ñuy war muy giléem giléem nag da yor atte atte lépp lu ñuy war ci kaw suuf waaye giléem da caa jiitu rek kon oto yi kon ci atte yooyu la bokk kon wa in nacha bu ñu neexee ñun yàlla nag nuxriqhum ñu labal leen fala sariixa déet aj xettali lahum di leen ñeel walaa hum déet ñoon tamit yun xadoon ñu leen di xettali kon suñu man suñu borom subhanahu wa taala su ma neexoon kat biñ nekkee ci biir géej gi ma labal leen fala muxiita lahum kenn du leen xettali ku kenn du leen dimbali tamit ci leen dal ci ay musiba kon kon nit ki lu mu weddi weddi suñu borom bu toogee ci kaw géej gi nekk ci bato bi moom dong dana xam ne suñu borom képp ko mënal foofa dara bu dara doon daanu du tudd keneen ku yàlla yàlla rek lay tudd waaye bu toogoon tey ci digg jaww ji nekk ci biir avion di dem avion bi nar a daanu du xalaat kenn ku dul borom bi subhaanahu wa taala kon boo jaaxlee ci yàlla rek ngay dem kon kon nag boo nekkee ci xéewal kon del tuddu suñu borom moo tax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni nekkal ak yàlla ci ak yombal mu nekkal ak yow ci ak jafe ci ay jafe-jafe motax mu wax faneen di ba dum noox ba ni inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tazkiratan wa taxiyaha uzunun wa'iya loolu waxe moy moy mooy wa tolloog wa inna sanukhrikum fala sarikh lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna loolu yërmaane jo xam day tukke ci ñun yàlla yërmaane képp moo tax ma defal leen loolu ba nga xam te ni bato yi da ngeen ci dugg ci du ngeen suux giléem yi tamit da ngeen ci dugg mu leen yóbbu fa ngeen jëm giléem yàlla def ci kiimaan goo xam te ni tey fu mu foo foo mën a dem ci àddina bi giléem mën la yóbbu ndax la tax mooy bu fekkee da ngaa dem ba nekk foo xam ne kekk la fu tëlee giléem yàlla da koy defal tànk yi mu nooy ci kaw kekk loolu waaye boo nekkoon fu gannuuse yàlla defal ko tànk yi mu dëgër ba nga xam te ni gannuuse du ko du ko du ko wan kon loolu si kiimaan suñu borom yi def ci giléem la moo tax suñu borom lu mu tudd ci alxuraan rek di ci joxe misaal rek xamal lu rëy la waaw inna allaha la yastahi yi yadriba ma an yadriba masalan ma baxoodan fa ma fooqaha bi mu joxee aw bi mu joxee misaal ci ci ci ci ci yoo ak weñ yéefari di ko ree naan yàlla mu ñàkk fayre lii képp ci lay misaal waaye gis nga weñ li ci yàlla wax wa in yaslubhumu dubaabu shay'an la yastanqiduhu minhu mais ñi ngeen di jéem a jaamu ci duñu yàlla mënuñoo bind aw weñ bu leen aw weñ sarax ndu woon sax jël ci ñoom dara lekk ko ñoom duñ ko mën a jëlaat ci weñ mukk médecine dem ba saxal ne weñ amul mbaq lu mu lekk fa saasa day génnaat kon la yastanqiduhu minhu weñ lum mu jël ci yow rek boko rayon rayoon bir ba do fa fekkaat alquran moo ko saxal médecine ñëw saharat ginaaw 1400 ane suñ borom wax ni illa rahmatan minna lu yërmaane ji duggé ci ñun wa mataan ak xewal ila hin xewal go xam da am fu muy yam kon waxoon naa ne mataanul hayatud dunya xewal bu dee mutaa dafa am fu muy yam waye neexma mom toujours day continuer mo tax wa tilka neexmatun tamunna alayya an abadta bani israil neex mom day continuer ba faaw waye mutaa bànneex la boo xam daa am fu muy yem mooy ci la jógee nikaaxul mutaa sëyub mutaa muy mariage temporaire ndax daa am foo xam bu ñu fa àggee ñu tas sëy bi kon bànneex bi daa am fu muy yem kon moo tax mu ne ak xéewal goo xam te nii xéewal la waaye ilaa xiin ba jëm bi jamono rek nag mu daal di arrêté waaw kon mu waxaat ni wa ida xiila lahum ci ay 45 wa ida xiila lahum bu leen waxee ñoom yéefari ni leen ittaqu ragal leen maa bayna aydikum lekk seen kanam wa maa xalfakum ak seen ginnaaw laallakum ndax la yéen turxam turxamoo nañu yéram leen Ma bu ñu leen ni leen fàttaliku leen mbugal yi yàlla du mo nit ñi leen jiitu won seen ginnaw ak mbugal yi wara ñew ci seen kanam yeen bu ngeen topp suñu borom subhanahu wa taala te ngeen ko fatlik topp yalla ragal yalla ndax ndax ndax yalla yërëm leen waye duñ tontu tontu bi fi suñu borom ko ndax ñom duñ tontu lu baax mo tax mu wa ma ta'tihim du leen dikke min ayatin kiman min ayati rabbihim ci aaya suñu borom illa kanu illa ndare bu du kanu yo nekkon an xaa wali si mo ni dina di way di ginnaw lu ñu lay wan ci kiimaani suñu borom ba tax ñu war koo mën a gëm rek dañuy daal di dellu ginnaaw duñu nangoo topp ay kiimaani suñu borom subhanahu wa taala duñu ko nangoo topp waaye dañuy dellu ginnaaw dañuy loolu mooy seen ko ñoom mu ni wa maa tati mu ni wa ida wa ida bu waxee fi leen bu waxeefee lahum ñeel leen anfiqoo dundale leen mimma rasaqakumullaahu ci leen yàlla wërsëgal qaala mu wax allazina kafaroo ñi weddi yàlla lillazina amanu ñeel ñi gëm anut'imu ndax dañuy leel di jox dund man koo xam te ne law yashaa'u llaahu bu neexoon yàlla at'amahu mu leel ko jox ko dund in antum yéen daal nekku leen ñu illaa ñu doon nit ñoo xamante nii fii dalal mu bi ci réer gu fës ngeen nekk réer gu réer gu bér ci ngeen nekk kon suñu leen waxee ni leen te ngeen a jël seen alal jox ko nit ñi nga xam ne ay jullit lañ te bëgg lu baax leel leen ci ndax amuñ ñu ni mo ñi seen ñàkk yàllaa ko bëgg kon ñun yàlla bëgg ñu ñàkk ñoom kon ñun du ñu leen di jox kon leen di jox kon wax ji in antum illa fi dalal mubin ibnu kasir nee na imma muy waxe a jox ne dee ñoom ñu doon dundale ñoo ko wax ñoom ñu waroon jox seen ñoo ne jullit yi daal yéen da réer ndax xamu li xew ndax koo xam ne yàlla xañ na ko nga bëgg koo jox kon kon da réer kon kon ñaar tafsir yooyu la aaya bi am kon kon loolu moo mooy mbir mi kon suñu lay waxee loolu rek ñu ni euh, duñ jox koo xam te ni daal bu neexoon yàlla mu jox ko dafa amut yàllaa ko bind muy aji ñàkk kon na jàppee waxoon ku rek yàlla moom maanoona moom mi ko joxut xam na ne kii bu ko joxoon du ci lu baax moo yeneen ni olof yi di wax leen di wax leen xañ a waaye comme jox xamal dalaa a séddaloo déedéet yàlla am na jox ñoo xam jox ngir alal leen am na ñum jox ñoo xam ñum xañ ñoo xam te ni tamit day na ngir yërëm leen xam na ni alal bu nekkoon ci ñoom xëy na duñ mën a def lañ bëgg a def ci lu baax lépp wala moom mu def ko ci xikmaam rek moom ci xarañam moom borom bi subhaanahu wa taala mu ni wa yaquluuna aaya 48 wa yaquluuna dañuy wax ni mata haada al waadu dig bii ngeen di dig naan alaxira day am kañ la in kuntum bu ngeen nekkee julli di saadiqiina di way wax dëgg kon loolu kañ la naan yàlla day dekkal nit ñi loolu kañ lay doon yàlla tontu ne ne maa yanzuruna duñ xool illa sayhatan waxida lu genn yuuxu rek bu len di bet taxuduhum go xam da len di japp waxum ca nak ya yaxsimuna ña ngay werante nga xuloo ca marché loolu moo tax yaana islaatu salaam wax ni marché barabu saytaane la marché ci barabu saytaane la bok jakk nak moy barabu suñu borom subhanahu wa taala neena xam nga xam nga wali israfil di wal ci boftu yi ñetti wala amna lu ñuy wax nafkhatul faza nafkhatul faza maam bu wala ñepp jàqandoo buñ jàqee nak ñom ñepp bu ñu walee ba pare ba ñu jàq ba pare day am saxar saxar su ñëw sawara su ñëw soo xam moo leen di méng sawara si day ànd nit ñi dem fuñ nit ñi taxaw mu taxaw fa buñ tëddee ci ron garab yi noppalu saxar si taxaw di leen xaar buñ paree mu toppaat leen leen yóbbu leen yóbbu ci ardul mahshar ardul mahshar mooy ardul sham am nañu ni mooy Syrie foofu leen di yóbbu bu leen yóbboo foofu ba pare nag loolu mooy mooy nafxatul fasam fa mu leen di fekk mooy leen fekk biir marché ñuy werante di jënd ak jaay ku nekk ñoom ñëpp daal tiit na commencé jaaxle jàq loolu mooy naf xasu fasa moo tax mu ne illaa say maa yanzuruna illaa sayhatan waaxida duñ toog di xool luul rek genn yuuxu da leen di bett ñoom ñëpp ida fa euh, taaxuduhum mu leen di jël ñoom ñëpp moom yuuxu gi waxum ca ñoom nag yaxas si mu ne ña ngay werante ca biir marché di coow kenn ku nekk naan def ma jox ma lii ak kii naan maam moom lii kii naan moomoo ko bu boobaa nag loolu mooy xew kon falaa yastatiuuna duñ man duñ kattan tawsiyatan di dénkaane kenn du mën naan hi sama doom ji nekk barab sàngam lañ ma ko téyel gaaw na ma ko diw téyel sama xaalis ba sama koppar for sama nangam déedéet duñ ko mën ndax du fa xaj temps bi du fa xaj mën ndax tiit nañ tiitaange joo xam te nii ma amatuñ sax xelum nekk di xalaat seen alal ya wala seen teraanga ja moo tax al amru ahzamu min zalik moo gën a màgg loola bu loolu amee ko noonu lañ foofa yi mujj ko ñoom tiit loolu jàq kon jàppal ni loolu mooy nafxatu fasan am na lu ñuy wax nafxatu sànq kooku mooy wal mooy deuxième wal gi kon ñetti wal moo am wal gu njëkk gi mooy boolee ci boftu bi ñëpp tiit commencé saxar sa yóbbu sawara si jël leen yóbbu leen ci ardul mahshar ca Sham buñ demaatee ba ci jëmmi jamono mu walaat nafxatu sànq mooy boolee ñëpp faatu fa saaqa man fi samaawaati wal ardi ñëpp daal di faatandoo kooku mooy deuxième bi bi ci tege mooy nafxatul baas wal ga muy walaat pour nit ñi dekk rek fa idaa hum qiyaamun yanzuruun ñëpp daal di jógaat taxaw def yaramu neen kenn ku nekk na la suñu borom bindee woon noonu ngay juddoowaat ñi xarafoon sax seen xaraf bi day delluwaat xorlan buhman ñëpp def taat neen def yaramu neen wal iyaazu billah aisha daan ni yonente bi alayhi wa sallam waaye yonente bi bu boba góor ñi jigéen dañuy xoolante yonente bi al ahz al amru ahzamu min zalika ya aisha mbir mi mo gëna mag lool kenn dal di xol sa morom sax boba kon ñetti wal yoy mo am kon wa ñetti wal yoy mo am kon fa fa suuf fa ansa baynahum kenn du xol naan di yoy sama baye di yoy sama mbokk boba kenn du maa delluwaat sa waa kër tamit wala ila ahlim deej deej nak dem ci seen wa kër yar ji wax na dañuy delu kenn du ma delu tamit sa waa kër dem sa kër di xool la nga fa bàyyi woon di ko lijjanti déedéet du mën a am mukk dénkaane du mën a am fa laa yastati'uuna tawsiyatan wala ilaa ahlihim yarji'uun kenn du mën dellu sa kër tamit aha suñ borom wax ne wanoo fi xañ ñu wal fi suuri te boftu ba fa idaa hum nag minal ajdaasi ca bàmmeel ya ca xabru ya ilaa rabbihim jëm seen borom yan siiluuna la ñuy gaaw di dem kon kooku mooy wàllu dekk gi kon mooy naf xatul baax gi ma la waxoon mooy wàllu dekk gi bu ñu dee ba pare ba war a dekki waat nag wàllu dekk gi nag bu israfil walaatee ñëpp daal di seen bàmmeel aj daas moo gën a moo gën yaatu bàmmeel ndax bàmmeel mooy xabru rek waaye aj daas boo ko waxee moom day làmboo fépp fu nit doomu nekkoon ci ka ka ka deewoon ñu lakk ko def ko ci ab bitéel ndox ak yépp ci biir aj daas lay dugg ka gaynde ga lekkoon mu ne ci biir biiru gaynde ka yeew ma lekkoon ka segg ga lekkoon ka ñoom ñépp dañuy daal di jógaat ci seen biir yi bàmmeel ak nu mu mën a nekkee rek ka demoon ba jeex sax suñu borom da koy indiwaat bindaat ko mu jógaat ba mat sëkk balaa qaadirina ala an nusawiya banaana waxuma la sax dekkal ko waaye seen baaraam yi sax ni mu tolloole woon noonu laa koy tolloolaat man suñu borom subhanahu wa taala balay dekkalaat kullu ibnu aadama yabla illa ajbu zanab la yonte bi wax ne doomu aadama léppay ràpp ci suuf lépp suuf di rek ba mu def sax ajbu zanab ajbu zanab mooy yax bi nekk ci ginnaaw nga xam ne moo mujj sa biir ginnaaw ci yaxu ndunkurunk gi yax googu suñu borom ne ci lay dekkalaat nit ki bu ëllëgee ndax yax googu ci la yàlla bind doomu aadama moo tax gis ngeen gis ngeen weñ lu suuf xam du ko lekk gis ngeen weñ suuf da koo xamut moo tax mu lekk ko wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid suñu borom ne damaa wàcce weñ kon weñ dëkkut ci suuf kon moo tax weñ boo ko suuloon ci suuf lu mu yàgg-yàgg suuf da koy lekk ba mu xam te ne moom ci suuf la jógee ak or ak yàgg-yàgg suuf du ko lekk mukk ci àddina ak pétrole gis ngeen loolu ci mu'jizatul i'jazul Qur'an la bokk weñ moom suñu borom nee dama koo wàcce waaye dëkkut ci suuf ñu tubaab bi tubaab bi doo dem ba dëkkut ci biir suuf moo tax weñ muy feer boo ko dugalee suuf suuf si lekk ko kon yaramu doomu aadama suuf si da lekk ba mu des aj bu zanab muy yax boobu ma la wax ndax yax boobu ci la ko suñu borom bind subhanahu wa ta'ala mu ni xaaloo ñu wax ni ñoom nit ñi bu ñu dekkee yaa way la na toroxtaange ñeel nañu man baxatanaa ku ñu dekkil min marqadinaa ci suñu nelawaay bi mooy lam diggoon arrahmaanu aji yërmani ja wa sadaqata dëggaloon rek rek al ñu yónni ña kon bu nit ñi dekkee kon yéefar yi buñ dekkee lañuy wax naan lañuy wax am na kon ñoo weddi woon dekki kon ñu ne ah ndekete dekki am na ay waay dund su yeewu dug nañ ci suñu nelaw yi doon yeewu kon fii nii am na ci kuffaar yi Euh, ci malaaxida yi ñi nga xam ne dañoo seen xam-xam jay na leen ba ñu weddi suñu borom ñu fi weddi mbugalu bàmmeel ndax ne min marxad min marxad yi naa la suñu borom wax ca marxad mooy barab boo xam dañ fa doon nelawee ne kon ñoom seen bàmmeel kon dañ doon nelaw rek kon kon kenn dumawu leen woon waaye loolu dàqantewut ndax maanaam dàqantewut ak ibnu kasir nee na maanaam euh, marxad du firi nelaw rek fépp fu ñu li tëdd rek marxad lañ koy tuddee moo xam noo fa tëddee nag waaye comme mbugalu bàmmeel daa nekk loo xam te ñun duñ ko gis nag kon moo tax ñu tuddee ko marxad loolu moo tax ñu tuddee ko marxad kon waaw yaa waylanaa man baxatan marqadina haada min marqadina foofu am na sakta boo seetloo ci xiraat yi bu dee warsh bu dee xafs dañuy def benn siin bu ndaw ci kaw ci yenn kaamil yi siin boobu mooy boo nee min marqadina xawal taxaw nooyi daan ne haada ma wa'ada rahmaan wa sadaqa al mursalun comme nga waxee kalla bal daal di jël raana ala xulubihim ma kaanu yaksibuun xiraat bi noonu moo ci gën a rafet waaye nekkul lu war boo ko defee baax na boo ko def tamit wàññiwul dara kon qaalu yaa waylanaa man baxatan marqadina hada ma wahada rahman wa sadaqa al-mursalun lii la ñu yàlla digoon nañu ba ëllëgee da ngeen dekk te nekkete kat yonente yam yoni won deggal nañ ci lañ doon wax rek mo xam yonente mooy ñett ñu wax mu sadiq saduq ñom ñu yalla yoon fa ansasna bi salis wala mo xam doon wote ci tawhid ak wa makk ñu leen woñu bañ yeefari dal ala kulli hal ñom ñi wedd dekk ñom buñ jógee ci seen bir bàmmeel loolu lañu ñu wax suñu borom daane in du nek illa sayhatan waahida gen yuhu. fa idahum te ñoom fekk ñoom ñëpp jami fa idahum jamihun mboole seen la day naa fa ñun muhdaruuna ñuy teewal lañ kon nit ñëpp dañuy teew fa yàlla subhanahu wa taala ñi mu war a duma mu duma leen ñi mu war a fay mu fay leen moo tax mu ni wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati fardan kenn ku nekk dana ñëw man wéet ak man ba jàpp man moom rek laa bindoon moo tax moo xam ni in kullu man fi sama ardi illa aati rahmani abdan képp koo gis ci asamaana suuf bu fekkee nangu na nekk jaamu suñu borom fii ci àddina it bu àllaaxira day nekk jaamu suñu borom subhanahu wa taala sañ ak bañ ci beneen aaya yawma yaxrujuuna min al ajdaasi siraan ka annahum ila nusubin yufidoon bu ñuy jógee ci bàmmeel dañuy waaxu gaaw ñoom ñëpp dañuy waaxu dem ca jëm ci suñu borom subhanahu wa taala kon yaa ngi doon daw yàlla ci àddina waaye nag àllaaxira moom da ngay wutali ca moom subhanahu wa taala moo tax benn borom xam nee na lépp loo ragal ci àddina da koy daw waaye suñu borom boo ko ragalee da ngay daw wutali ko loo ragal da ngay daw di ngay daw da ngay daw sori ko waaye suñ borom moom boo ko ragalee da ngay daw wutali ko laa malja min allahi illa ilayhi loolu moo ñu am solo yan si loolu kon nas la mooy almashiyu sarih mooy ngay daw bu baax a baax de budal suñu borom loolu mooy loolu mooy nas la si loolu kon jullit yi am nañu ni jullit yi loolu seeni wax la hada maa waxada rahman sadaqal muslim am nañu yéefar yee ko wax am nañu dee eh, jullit ñoo leen tontu loolu daan leen hada lii day maa yàlla digoon ngeen yéefar yi ngeen bañ wa sadaqal mursaluun te yonente yi ñu yónni woon ci yéen tamit wax nañ dëgg te lañ nekkoon ñoom wax nañ dëgg te lañ nekkoon kon ñaari firi yooyu la am kon am nañu lii wax yéefar yi la am ñu ni wax julli yi dañoo leen di waar di leen wax ni leen donte waaru wees na foofa ndax booba gis nañ mbugal waraawul azab wa taqattaan bihimul asbaab suñu borom wax ci aaya 55 wax ni inna ashaabal jannati al yawma fii shughulin faakihun déet astaghfirullah am na aaya bu ñu jël fal yawma laa tuzlamu nafsun ma kuntum ta'malun mu ni fal yawma tey day laa tuzlamu deefu tooñ nafsun bakkan shay'an ci dara suñu borom tooñ kenn wala tujzawna te deefu fay leen illa ma lu la nga xam te ni kuntum nekkoon ngeen taamaluuna di ko jëf ci ay jëf la ngeen doon def képp la ngeen suñu borom di fay waaye kenn koo xam te ni yàlla tooñ du am wala yazlimu rabbuka du tooñ kenn lépp loo def rek loolu lay fay waaye du ca dolli bu fekkee lu baax lu bon la du ca dolli bu dee lu baax nag moom ki la dolli lu baax moom tooñu la da waaye laa may waaye ki la dolli ki nga xam te ni la nga defoon rek ci lu bon loolu la fay kooku tamit tooñu la kon suñu borom la du tooñ misxaalu zarra suñu borom waxaat ci aaya 55 ni inna ashaabal jannati naka waa aljanna al yawma tey tey fii shughulin ñu ngi ci yitte woo goo xam te ne faakihuna dañuy bég di kontaan kon aaye bi am nañu ko firi ay firi yu bari fii shughulin am nañu ni mooy ñi ngi ci yitte woo itte joo xam te ne nii bokkut ak la waa sawar a nekk ñi ngi ci itte joo ne bokkut ak la waa sawar a nekk la waa sawar ñu ngi ci fitna waaye ñoom waaye waa aljana ñoom ñoom ñi ngi ci ñi ngi ci xéwal yi ba sëkk ñoom kon noonu la ko borom xam ne firee kon am nañu ko firee noonu am nañu fii naim ñi ngi ci ay xéewal yu bare baree bari am ñu ni eh, ñu ngi ci iftidaar iftidaarul abkaar boobu nag moom moom firi la boo xam ne ñu bare bare dañu mooy maanaam iftidaarul abkaar mooy maanaam ñu ngi leen di jébbal jànq ja ñu dindi seen seen ndaw ya maanaam ci ñi ban ñi nga ngay bànneexu daal ci dindi ndaw yi jànq ja ndax wax nañ ni am nañu wax ci borom xam ne ni yi ñi nga ne ba àjjana ay la ñuy doon ay jànq la doon faaw bis bu set saa ñoom rek sëyu bees lay doon maanaam ngir bànneexal leen ngir bànneexal nit ñi dinañ fexe ba sëy sëy booy sëy si soxna ci aljana am sëy bu bees lay doon mu mel ni koo xam na ngay dindi ak ndawam ndaw bu bees muy euh, virgin virginité bu bees bi mel ne tey tey tey la du sa waaye ñu bàyyi xel ni foofu bu boobaa soxna si boo koy dindi ci moom du naqari ci moom du métti ci moom waaye neex lay doon ci moom ni muy méttee ci àddina du ko méttee ci moom boo koy dindi ci moom ndaw googee kon fii suxulin faakixoon fii suxulin ña ngay dindi seen ndaw yi soxna ya faakihuna di aji kontaan ci loola soxna yee kontaan ñoom it ñuy kontaan kon du am aw métit kon hum ñoom nag wa azwaajuhum ak seeni soxna fii zilaalin nañ ci këri aljana ala araaki yi toog ci digg lal ya ak photo ya muttaki'uuna di way di way soonu waaw maanaam ñi nga toog ci seen lal yi di noos di soonu yor seeni soxna yor seeni furwi lépp luñ bëgg rek moo am ñu am ko moo tax mu ne lahum ñeel leen fii xaa ca aljana faakihatun ay fruits yu leen neex wala hum te ñeen leen nag maa ngi doxoon lépp lu ñuy sàkku rek ci àddina ci ci àlaxira aljanna loo fa bëgg rek da nga koy daal di am fasaasa loo fa bëgg fasaasa da koy daal am kon kon ña ngi fa nekk seeni soxna kon léegi hum wa azwaajuhum ñoo seeni soxna waaye seeni soxna yooyu soxna yi nekkoon àddina wala yi nekkoon alaxira boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax yu baree baree bëri ndax bu fekkee soxna yi nekkoon àddina képp la iskaal bi mooy kon ñi amuloon soxna ci àddina kon nekkal ak ñi nga xam te ne ay soxna pare amoon borom kër mu faatu ñu amaat beneen borom kër wala ñu amoon borom kër borom kër boobu ci la ñu amaat beneen borom kër kon ñen ñoo nekk seen óorul ay ni bu ëllëgee borom xam-xam yi ni ñu ci firee ku mel ni Ibnu Usaymin leeral na ci lu bëree bëri nee na soxna yi amul woon fii ay soxna soxna waaw góor ñi amul woon fii ay soxna bu ëllëgee soxna yi amul woon ay soxna li ñu jox ñu nekk seen óorul ay ni ci nekk ca biir aljana soxna yi góor ñi amoon fii ay soxna te soxna yi nekkoon ay yéefar gëmuñu yàlla ndax duñu dem aljana kon bu boobaa buñ démé aljana ñom tamit seen soxna yi nekkon ci adna nekkon ay yéefar duñ nekk ñom bir aljana waye dañuy jël góor ñi nga xamanteni nii dañuy jël jigéen ñi nga xamanteni nii amuñu woon ay borom kër jox leen ko wala ñu jël jigéen ñi nga xamanteni nii xëy avant l'islam na yoon nekkoon ay nekkon avant l'islam da nga noon jigéen ak góor jigéen ak jullit sëy ak góor gu dul jullit ñooñu nga xam loolu da nga yoon na ci ñom seeni jëkke yi ñu yobu sawara comme ku melni ñom Asiya ñu jël seen soxna yi nak jox ko góor ñi nga xamanteni ñoo ñoom dañoo fi ay soxna yo xam ay ay yéefar la ñu te fekk ñoom dañu nekkon ci lu baax ñoom góor ñoña kon noonu la ñuy def kon ki musta am soxna fi dal bu demee man na am soxna aljana tamit ki musta am soxna fi taxalikoo mom nak bu boba borom xam ne iskaal di wax ni ay bu boba jigen gën am dañ koy tanalo ni ko xaal xol sa jëkkër ju njëkk ji ak mujj ko ci bëgg am ñu dé jëkkër di mujj moy nek borom kërëm way ala kulli hal ay mbir la yo xam ay xaybiyaat la suñu borom nag moo xam ne démé waye borom xam-xam dal loolu lañ ci léral wallahu taala alam wa raddu ilayhi aslam kon suñu borom dal ni salamun qawlan min rabbin rahim salamun qawlan min rabbin rahim wax jooju amul wax ju ko gën a rëy ci alxuraanu karim ndax waxi suñu borom la moom suñu borom waxi alxuraan lépp waxi suñu borom la waaye ci aljana nag suñu borom mooy nuyu waa aljana naan leen salaamun qawlan min rabbin rahim maa ngi leen di nuyu yéen waa aljana moo tax am na xadis boo xam te nii xadisu jaabir ibn abdillah alayhi salatu wasalam wax ni eh, suñu borom day waa aljana buñ nekk seeni xéewal ñoom ñëpp di noos di noos dañuy jékki-jékki genn leer gu mag daal di jógee ci kaw ñu ñoom ñëpp ñu téen xool gisul leer bi ñu xoolee gis leer gi ñu yëkkil seen i bopp bi ñu yëkkil seen i bopp rek ñu gis borom bi subhaanahu wa taala daal di leen di tiim daal di leen tiim daal di leen assalaamu aleykum yaa ahlal janna yéen waa aljanna maa ngi leen nuyu man yàlla loolu mooy wax li mu wax ji mu wax ni salaamun qawlan min rabbin rahim yal nañu yàlla booy ci ñu ngi koy wax bu ëllëgee nee na bu boobaa nag ñoom ñëpp ñu xool gis suñ borom subhanahu wa taala kenn du gersoo di xéewal yi nga nekkoon soxna sa nga nekkeroon ak xéewal yaa yëpp doo ci gersoo dara ndax ban neexub gis suñ borom bi neex gi muy neex ñu koy xool di ko xool di xool ba mu demaat moom suñu borom subhanahu wa taala bu demee nag ak leeram dafay des ak barkeem ñu continuer di xool leer googu ak barke ba muy neex ci ñoom ba tey yal nañ ci yàlla boole. kon loolu lu am solo la kon moo tax ñu wax ni bu bu yàlla paree ci waa aljana waa sawara ba kenn ku nekk mu defal la bay defal ba pare nag bu boobaa nag day aqbala fi zulali min al-ghamami wal malaika day ànd ak malaika yi nak ànd ak ay jógee ci bir mir yi ànd ak malaika yi di wàcc ci bir aljana ngir waa aljana di ko gis kon kon gis yàlla ci aljana ci ahadith yi nga xamne ahadith mutawatir ci la bokk mo tax borom xam-xam wax ni mimma tawatara hadithu man kadab wa man bana lillahi baytan waxtasab wa ruyatun shafaatun wal hawd wa mas wa haadi ba'd kon gis yàlla ci aljana ci ahadith mutawatir yi la bokk weddi da nga bokk ci yefar yi kon suñu borom moy nuyu waa aljana ni salaamun jàmm qawlan ci ay wax min rabbin mi ngi jógee ci borom ba nga xam te ne raxiimin ku yërmande la ku am yërmande la kon daal maa ngi leen di wax jàmm yéen waa aljana ndax man damaa am yërmande moo tax ma dugal leen fii ci aljana kon yéen nit ñi moo tax ma dugal leen fii ci aljana suñu borom wax ci aaya 59 wax ni wamtaazul yawma أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سنبرم وحمي wamtaazu ràññiku leen al yawma tey ayyuhal mujrimuun yéen yéefar yi kon boo seetoo yàlla yéefar yi jullit bu ñëwee ca aljana ca ca bañ war leen a àtte daan wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun ate génn leen gaaw yéen yéefar yi génn leen ci biir jullit yi ngeen nekk xam nga ni mosu ngeen fi amee xéewal kon fa zayyal naa baynahum loolu koy fi loolu firiwaat fa zayyal naa baynahum ma tàqale seen diggante law ta zayyaloo gis nga law ta zayyaloo la aduna lazina kafaru min adab aliman kon kon fa may tàqali seen diggante yéefar yi jullit yi kon wamtaasu ràññiku leen te tàqalikoo yéen yéefar yi al yawma tey ayyuhal mujrimun yéen kàccoor yi alam ahad ilaykum xanaa saxantewu ma woon xanaa fasantewu ma woon ak yéen kóllëre yaa bani aadama yéen waa kër aadama allaa taabudu seytaan ne bu leen jaamu seytaane innahu naka moom seytaane lakum ñeen leen aduwwun am noonu abi mubinun bu bér waxoon naa leen leen bu leen jaamu saytaane tey nag ngeen lank dem jaamu saytaane kon tey gën leen ci biir jullit yi ndax jullit ñoom man lañ doon jaamu yéen ngeen doon jaamu saytaane kon du ma leen boole mukk ab barab yéen ñaar moo tax mu waxaat ci beneen aaya ni ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم موحد فاني ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون داني يعني تخليكو مام يفري جوني بوك فني نيك موتاخ باي ماني يعني يومئذ يصدعون تي بين ايه داني يعني تخليكو جوم دوني بوك فني نيك موحد فهمني احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم بلين تخلي بار نك ني جيل لين نيوم يوبو لين moo tax mu ni alam ahad ilaykum ya bani aadama allah taabudu sheytaana innahu lakum adu mubin waxoon naa ne bu leen jaamu seytaan leen yedd kon leen xas waxoon naa ne bu leen jaamu seytaan ndax ab seenum noonu la bu bér la lu ma leen waxoon wa ani xabuduuni te ngeen jaamu man yàlla haada lii day siraatun mustaqimun aw yoon la wu jub waxoon naa ne lépp leeroon ci yéen digaloon naa ci àddina ni leen jaamu leen yàlla te bàyyi seytaane ndax seytaane baaxul lu tax baaxul wala xad adalla minkum jibilan kasiran afalam takunu taaqiloon wala xad adalla réeral na moom seytaane minkum ci yéen jibilan am mbooloo ay mbindeef yu bari kasiiran yu baree baree bëri afalam takunu xanaa nekku leen woon ci àddina tànqilun di ànd ak seenum xel waxoon naa leen ni leen mii bu ngeen ko toppee mu réeral leen laa tattabiu wa seytaan bu leen topp bu leen topp jéegooy saytaane waxoon naa ko man yàlla waaye ngeen lànk dem topp saytaane ci saytaane moom waxoon naa bu ngeen ko toppee dana réeral ndax réeral nañu baree bëri ci yéen jibil leen xol xalqan kasiiran mbindeef yu baree bëri saytaane réeral nañ ci yéen xanaa nekku leen woon ci àddina di ànd ak seeni xel xanaa nekku leen woon ci àddina di amé seeni xel ah muni mo moo tax yonente sallam néna salaatu salaam sallam néna yonente bi alayhi salaatu salaam bu yomal xiyaam agsee yàlla day digël sawara ni ko gennel ci seen mbolo bi aw nit buñ len genné pare yàlla xol len daan ni leen alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash sheytaan innahu lakum aduwwun mubin wa an as-sirata al mustaqim ولقد أضل منكم minkum كثيرا kasiran تكونوا تعقلون xaalis jaan la kuntum tuadun daal di nag imtaazul yawma ayyuhal mujrimoon nit ñi daal di taxaliko nag yéefar yi taxaw ne jullit yi taxaw ne moo tax mu wax faneen ni wa tara kulla ummatin jaasiya kullu ummatin tud'a ila kitaabiha al yawma tujzawna maa kuntum taamaluun xeet wu nekk la yàlla fay ko la mu ko war a fay ci ay ci ay musiba moo xaat ci aaya 63 yi haadihi lii day jahannama mooy sawara allati danga xam ne kuntum nekkoon ngeen tuuxadoon leen koy dig ci ci àddina sawara sii moom lañ leen wax na mooy leen ko di leen ko dig ngeen lànk bañ ko bañ ko bañ ko bañ a faale yonente yéen ñu yónni ci yéen islawhaa lakk leen ko al tey bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon takfuruuna di ko weddi yàlla kon foo seetloo fii islawhaa la wax lakk leen sawara maanaam moon naa wax ni na ngeen sawara lakk waaye lakk leen sawara ngir mbugal mi gën a métti ndax ñoom ñoo dem di lakki sawara fekk sawara moo leen lakk kon ngir métti mbugal moo wax loolu istaw al yawma ma kuntum takfurun al yawma tey nag naxtimu man yàlla dinaa tampon ala afwaahim ci i gémmañ wa tukallimunaa muy wax ak man aydihum seen i loxo wa tashhadu muy seede arjuluhum seen i tànk bi maa kaanu ci sababu lañ nekkoon yaksibuuna di ko def ci ay bakkaar kon suñ borom nee na tey nag seen gémmañ yi dinaa ko tëj ndax ñiy wax gémmañ du wax tey tey loxooy wax ak tànk ak i cër boroom xam-xam yi neen ci xadis yu wér cër bi njëkk a seede doomu aadama mooy ab poojam ab poojam moo ko njëkk a moo tax arjuluhum foofu am nañu zakaral kull wa araadal baad dafa lépp waaye li bëgg mooy rek wane ni pooj bi mooy njëkk a tontu kon yaakaar naa li Sénégal yi wax pooj bu ñu xamoon ni pooj mooy njëkk a seede nañ ko moytu kon yéefar yi ak naafiq yi ko yow ma xiyaam lii mooy seen mbir kon ndax dañoo weddi woon dañoo weddi woon ni yàlla du leen dekkilaat ci àlaxira bu ëllëgee ci waat nak di ci wax motax wedd gi nga wedd seen gémmañ motax seen gémmañ yi weddi mom du am pour wax yalla da koy da koy day tamponer seen gémmañ yi sakk ko ba duñu mën wax bu ko tamponer pare nak ba duñu wax suñ borom daal di jël seeni cër wax loo len seeni cër yestante ko jawari xamam bi ma amilat seen cër yëpp dañuy wax cër bu nek ma defon nangam Sakar ni ma ndialo won tank ni ma doxoon dem seti ko loxo bi ni ma ma maa làmboon bëri ni ma xooloon bakkan bi ma nooyi won gémma ngi ni ma euh, nopi ni ma diglu won waaye gémmañ gi moom du wax moom gémmañ gi du wax soo laay lu tax ñu wax ne antaxa na lawla antaxa kulla shay yàlla moo ñu wax loo ñu wax tey moom moo ñu yaa daa wax loo bu njëkk yaa daa téye ba yaa ñu yaa ñu yaa woon bi di def loolu la neex waaye tey nag moom yàlla moo ñu wax loo moom tey dañu wax euh, jëlee ci champs bi mu jël ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne na benn bis ñu toog ci yonente bi alayhi salatu wasalam mu jékki-jékki daal di ree mu ree ba ba ñu dajee ma ñu feeñ moom yonente bi alayhi ñu ko yonente looy ree wala boobu moom mu wax ne ndax xam ngeen lu may ree ñu ko dee yàlla ko yonente bi rek mu ñoo xam looy ree mu ni damay damay ree daal jaam bi ni muy werante yàlla yowmal xiyaam naan ko tax musaloo ma ci ma tooñ yàlla ba ma lay tooñ ci àddina lu tax bàyyi ma woon te musaloo ma ci woon ma tooñ ndax kon na li yaa dogal rek ma bëgg maa duma kon yàlla ni ko déet tey nag moom wax amu fi moom jéema a laytoo amu fi tey moom duma jox kenn muy seede may seedeel waaw tey moom kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba seedeel sa bopp tey wa bil kiraamil kaatibiina shuhuudan ak malaaka yu tedd yi ma leen boole ñuy bind ñoom it ñooy seede seen yëf fa yaxtimu ala ala fii yàlla daal di tamponné ci gémmañ ngi ba du mën a tee wax nee na ñu wax nag cëram yi leen wax leen cër yi commencé wax intiqi fatantiqu fatantiqu bi amalihi cër yëpp commencé di wax ay li mu doon jëf après bi ñu paree nag ñu bàyyi ko ak suñu borom subhaanahu wa taala mu bëgg a lay suñu borom daan ko bon dan soxqan alkane ñeel na la teraanga toroxtaanga ñeel na la demal sawara xadis boobu mu ngi ci saxiixu imam muslim radiallahu bi loolu la doon ree kon nit ki ñëw ci àddina alaxira jàpp ni mën naa amoo lay commencé la yàlla ne ko déedéet yow tey amoo pour wax say cëray wax cër yi di wax waaw cër yi di wax euh, kon muni wala nashau, shau bu ñu neexoon ñun yàlla la tamas ñu mur ala ayunihim ci seeni bët suma ma mamur man yalla ma mur seeni bët kon daa bëgg wax rek ni seeni ci ba xàmmeetuñ lu baax ak lu bon mur ali ibn abi talha ibn ibnu abbas non lañ firee aaya bi kon walaw nashaa'u la adlalnaahum anil huda bu ñu neexoon ñun yalla ñu réeral leen ci ak njub gi fa kayfa kon nu kon kon daa bëgg wax ni man yàlla maa leen réeral kon day mel luy laaj waaye dafa bëgg wax ni man maa leen réeral moo tax mënuñoo gindik kon man yàlla subhaanahu wa taala mooy amaynaahum waaw amaynaahum ñu gumbaal leen waaw mhm. walaw nashaau la tamasna ala ayuni fastabaxu ñu jiitoonte assiraata yoon wa fa annaa fan la ñuy gisee suñu borom nee na kon ñoom kat suma neexoon ma teg leen ci yoonoo ba ñu aw di ca di ci ba awca ba awca jiitu ca ñëpp waaye nag maa leen maa leen gumbaal muur seeni bët ba mënuñoo gis fañuy aw ba àgg ci yoonu jubwa wa waaw law sha allahu la tamasa ala ayunihim fa jaalahum am yataraddadun noonu la ko noonu la ko basri firé bu neexoon yàlla mu muur seeni bët ba tax ñuy dengi dengi dem ak rek ñu xam fuñ jëm ba duñu am ci aw xam ne aw ci yoon wi nga xam mooy yoonu jubbi yàlla waxaa ne walaw nashaau bu ñu neexoon la masaxnaahum kon ñu ñu soppi seenu bind ma soppi seen alal leen ma soppi seenu bind ala makaanatihim ci barab bii ñu nekk toog su ma neexoon ma def leen ay golo baa ma def leen ay mbaam baa ma soppi seenu bind wala sax ñu seen jëmm nekk jëmmi doomu aadama ba pare seen jikko nekk jikkoy golo wala ñu nekk jikkoy mbaam wala ñu nekk loo xam te ni ay jamaadaat la ñuy doon waaw loolu mooy almasx almasx mooy taxyirul xalq soppi bind bi def ko ba neen bind suñu borom da koy def ñu baree baree bari defoon na ko waa banu Israël muy yahud ya waaw waaw xasaar ni mu ko firee mooy su ma neexoon daal ma toogal liñ seeni tànk maam def seeni tànk ñu ci maam mu damm duñ mënatee toog waaye li am daal mooy li am solo mooy eh, soppi seenu bind rek la moo xam soppi leen ñu dellu ñu dellu ginnaaw yu mën dem kanam wala yu mel waaye lu ñu ci am rek mooy soppi seenu bind masx nag lu am la sax la borom xam saxal nañ ko mooy soppi soppi doomu aadama borom xam wax nañ ci masala bi wax ni ci misaal bu ni ay nit doon sëy ñu jeg jegi masx kenn ki maanaam yàlla soppi kenn ki def ko golo wala mu def ko garab wala mu def ko butéel wala yu mel noonu bu boobaa luy àtteeb sëy ba boroom xam ne ni ñu waxee mooy bu fekkee la yàlla soppiloo ak am nag ruu daa soppi jëkkër yi wala jabar yi nekk ak golo mbaa mu nekk fas wala mbaam wala xar wala yu mel noonu nga xam ne am nag ruu bu boobaa jàpp ni sëy ba das na mu jàpp idda yi kuñ fase bu fekkee nag da ko soppi loo xam ne amatu ruu lu mel ni def ko garab wala def ko bitee wala bant wala wala yu mel noonu bu boobaa dañ koy jàppee ku faatu dañuy jàppee waa ji ku faatu ndax amatul ruux léegi bu ko defee ndaw si day jàpp idday ku faatu arbaata ashhurin wa ashra day toog fukki weer fukki ñeenti weer ak fukki fan jàpp idday ku faatu kon loolu mooy masxu kon noonu ko borom xam-xam yi leerale wallahu alam suñ borom teg ci ni wa man nu ammirhu képp koo xam te ne dundal naa ko ba guddal aw fanam nu dakkishu dinaa ko tëbal wala dinaa ko naa ko daj naa ko nuural naj ko fil xalq ci ab bind afala yanqilu da xanaa duñ xellu suñ borom nee na képp koo xam te may naa ko fan wu gudd ba mu gudd fan bés dana ñëw ma sëggal ko mu sonn néew doole waaw mu sonn néew doole waaye loolu nag awliya ullaahi yi mooy nit ñi méngoon yàlla ñoom bokkuñ ci luñ màggat màggat du tee dañ mën a jaamu yàlla luñ màggat màggat du tee dañ mën a julli dañ mën a woor set wicc nag moo tax benn borom xam mag nee na suñ mag ñi dañu daa toog une semaine duñ sangu ajuma ba ajuma lañuy sangu waaye ndox la ñuy xeeñ waaye ñun nag ku ñu wàcc sangoo képp da ngay xeeñ xun ak xet la ko waral mooy bakkaar yu bon yi waaye mag ñoom ndox lañ doon xeeñ ndax seeni cër moo laaj woon ci jaamu yàlla nga gis mag moo xam ne day toog di naafila guddi du sonn mukk te yow mi xale boo yéegoon escalier yi sonn ndax say cër daal laggi wut ci jaamu yàlla gis mag moo xam te nii bu yéegoon escalier yi ñaari ñaari ñaari escalier képp bu ko yéegee sonn parce que jaamu woon yàlla bu nekkee ba say cër làgg ci jaamu yàlla loo màggat màggat jaamu yàlla googu da ko gën a man waaye doo ko gën a doo ko tëree mukk kon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jaamu yàlla ba ay tànkam di fett doo bàyyi ko jaam boo xam ne may sant tax mu waxaat wa minkum man yuraddu ila arzalil umri li kay laa ya'lama min ba'di ilmin shay'an aaya boobu mooy firi bii mu ni bokk na ci yéen ñoo xam te ni dama leen ngir dootuñu xamati dara di te gis nga gaa yi yàlla lu ñu naax naax duñ jaawale euh, wirde alxuraan bi ñu war a jàng duñ jaawale jaamu yàlla julli yi duñ jaawale ni ñuy jàppee waaye ñeneen mooy yàlla nag moom buñ màgg buñ màggatee ba naax moom waxuma la jaawale julli sa waaye ñu xamante sax penko bi féetee mu ni kon afala yanqiluna xanaa duñ xellu kon kon ni ma lay bindee nga nekk ndaw am kattan dem ba mu yàgg nga néew doole dem ba mu yàgg nga dem ba xamatoo lenn dem ba mu nga faatu kon loolu day firndeel ni man mën naa laa déclarer man yàlla subhaanahu wa taala ci état bi yooyu may dundal moo tax moo tax mu ni euh, ci beneen aaya allahu allazi xalaqakum min daafin summa jaala min baadi daafin quwa summa jaala min baadi quwatin daafan wa shayba yaxluqu maa yashaau huwa al-aliimu al-qadiir waaw yàlla mooy di bind ci ak néew doole ngeen nekk ndaw ginnaaw ba ngeen néew doole mu joxaat leen ngeen am kattan ginnaaw ba ngeen am kattan mu joxaat defaat leen ngeen néew doole ngeen néewaat doole ginnaaw ba mu def leen ay ngeen néew doole pare bi jaaw mënatu leen dara kon koku moy ki nga xam moy bind lu ko neex ndax moy aji xamja moy aji kàttan ja tamit borom subhanahu wa taala euh suñ borom tax ni wa allamnahu allamnaahu shi'ra wa maa allamnaahu xamaluñ ko Muhammad ash-shi'ra poesi moy way wa maa yanbaghi lahu ta yelul sax moy way ñante munta way ta yelul sax moy way in huwa dara nek fi lut illa dikrun luut alquran wa qur'an luut alquran wa qur'an ak njàng muy alquran di mu benu ju bér kon alxuraan ji ak fàttaliku la ak alxuraan ji wér kon wax naa ne zikrun bu ñu ko waxee ci alxuraan mooy bu ñu ko waxee ci alxuraan mooy alxuraan wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim waaw kon yàlla nee na Muhammad xamaluma ko way te munta way te yellul sax muy way far kon loolu ndax day wane ne way dafa bon way bonut waaye Muhammad bu doon way dañuy jàpp ni kon moom mën naa am alxuraan dafa fent way ko ndax am nañu ko tuumaal ne ab waykat la woon kon yonente munta way alayhi salaatu wasalaam waaye foofu ishkaal bu mag am na fi iskaal ma am na dinaa ko jéem a leeral incha allah kon su ko defee wa maa yanbaxi lahu maanaam natiiram moom munta waay sax far moom mu natiiram munta waay ndax way ku ne xam na ni fokk nga xam ko bu baax a baax xam awsaan yi xam zixaafaat xam ilal xam ilmul aruud xam ilmul xaafiya xam awsaan yi yëpp ci Muhammad munta xam loolu ndax jàngut ummi yi la an nabiyul ummi allazi yajiduna maktuuban indahum fi tawraat wal injil ab ummi yi la boo xam xamul dara turam sax mënu koo bind mun xàmmeewul sax bismillahi rahmaani rahiim bu ko xooloon da koy mokkal noonu rek moom ci dënn bi kon kooku nan lay mën a waye kon te bu mënoon a waye waa Màkka ni kon dafa fent affaire kon du ko tappale moo tax yàlla préparé ko mënut a way waaw moo tax euh, daana ci def yu xoromu sax moom yonente bi alayhi salaatu salaam daana wax ana nabi la kadib ana ibnu abdul mutalib waaye lii day mel ni ay way la waaye boo xoolee dëgg-dëgg da ngay xam ne lii du ay way was na bi moo ñëw rek waaye du ay way te bu ñu lay xamal way ci ci ci ci ilmul arud dañ naan la al kalaam al muqaf al mawzun المقفى مع العاطفة والخيال بالقصد إن لوي الكلام الموزون ما واحد بيسي المقفى نوتل أي دانواي مع العاطفة مع سنتما والخيال أك إيماجيناشون بالقصد وأي شيء أجدبلو كون واي دان كوي دبلو كون كون واي كان بدأ قوي من إمرأة الخيال سيمسا ولا مدن نبي بتدون دينا واحد بيت بتدون دينا واحد أي بيت دان لي دو أي واي دان دبلو كجبارة bu man mandee woon waxi bayit dañ naan du ay way ndax jublu ko ci kon xas du mënu ci ñàkk kon yonente bi nag bi mu koy wax loolu da koy wax rek mu tolloog ay way waaye jublu ci woon way in yantahu yughfar lahum ma qad salaf mustafilun mustafilun mustafilun ci alquran la nekk boo peesee woon tey jii day yor mandaxeb way fi ne nii qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf muy mustafilun mustafilun mustafilun tolloog baxru rajas waaye du way ndax yàlla jublu ci way fa asbahu la tura illa masakinuhum mustafilun failun mustafilun failun baxru basit innal basita ladayhi yabsutu al amala mustafailun failun mustafailun failun kon boo ne fa asbahu la tura illa masakinuhum wala fa asbahu la yura illa masakinuhum noo ko waxee baax na day yor baxru basit la yor was nu baxru basit waaye kenn du mën a wax ne ay way la ndax suñu borom jubluwu ci ay way kon way kon fokk day am aatifa am xayaal ba pare borom jublu ko ca boo seetloo baxru rajas dañuy wax ni manzuma lay doon waaye doon chihar parce que amut aatifa amut xayaal moo tax كلامنا لفظ مفيد كستقيم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمه والقول عام وكلمه بها كلام خديو ام تي ابن مالك تي طيب، بو تاري ولو لب فنمي منوكو تودي اي أيوة، واي تي لانغ عرب واي نظم غو تودي ولا منظومه واي دون شعر مك كون فوك واي كون داي ام عاطفه ام خيال با بري بروم ديبلو كو يوان تي نك دان واخ منورو اي أيوة. واي ديبلو واي نده أيوة، بو ديفور اي واي دوكو خام لا بروف موي بودا تاري اي بي تسو لاجي جوم يوان عليه الصلاه والسلام سايو موسى تاري بي داي جوم سبحان الله العظيم motax am na benn bis yonente bi di jéem a bisaal aw bayit di ko jéem a wax ndeysaan naan kafa bil islami wa shaybi lil mar'i naahiyan abubakar ni ko hii yonente bi du noonu de <laughs> abubakar ni ko hii yonente bi du noonu de bayit bi du wal islaamu lil mar'i naahiyan la yonente bi daa ah ñoo yem rek nga xam ne kon moom xamul woon way kon alayhi salaatu wasalaam xamul saa yu Moussa wax aw bayit Ibn Kasir neen saa yu yonente bi Moussa wax aw bayit day juum saa yu ko Moussa wax day juum loolu ci mu'jizatul Qur'an la bokk waaw moo tax ma ne utiitil qur'aan wa mislahu maahu alquran ak alquran ji ñu ma jox ak sunna si ñu ma jox doy na ma sëkk am na benn bi sax muy wax ak abbas abbas ibnu mardas muy jéem a wax abbas muy jéem a nett li waxi abbas ibnu mardas al sulami ay wayim wayoon naan antal qaa'ilu daan ko da yaa waxoon bayt yi atajalu nahbi wa nahbal ubaydi bayna al aqrahi wal wa ayna bi mu ko waxee wàllu dee wax ma loolu bayna wa ayna wal aqra laa wax nga xam ne kon saa yu ko Moussa bëgg a wax même bu ci juluur kaf sax day jóom day juum yi nga def daal ah alkullu sawa lépp a yam rek ndeysaan ngir kersaam waaw kooku mooy yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax Suhayli fi rawdul anf wax na ci lu mel noonu net na ci yu bëree bëri yu mel noonu ci taqdim boobu yonente bi ak taxiir bi ni ma ni mu am làmm ñu yonente bi ni mu barkeele ba kawayoon lee dem sawara kawayoon lee dem ajana waaye ibnu kasir ne hada baid kon wa maa allamnaahu shihra wa maa yanbaghi lahu yonente bi mun ta way te yellul ci moom sax muy way nag waaw yéenul ci moom sax alayhi salaatu wasalaam muy way moo tax ana bis mu muy tari jéem a tari bay di tamit satuddi lakal ayyaamu maa kunta jaahilan wata waaye saa yu ko waxee da ciy jóom waaw da bu ñu koy tari naan xam nga bay dañu wa yaatika bil axbaari maa lam tusawwari yonente bi daan ni maa lam tusawwari bil axbaari <laughs> nga xam ne lii maanaam xaadim busul mi gën a tëlee jàng yooyu sax bu ko wayee day xam ne bu lii daa damm ngay xam ne lii dafa damm kon kon gis nga alxuraan kon yonente bi suñu mun ta way kon maalam tasawari bil axbaar kenn da ko wax aboubacar daane ko dee yonente bi noonu de mu ko waaye man du ma woykat ah du ma woykat bàyyi ma lastu bi shaa'ir wala yambaxi lahu du ma woykat te mënumaa woy kon moo tax yonente la wax ne wa shu'araa'u yattabi'uhumul ghaawuun wala yattabi'uhumul ghaawuun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna maa laa yaf'aluun maam ñu ëpp ci woykat yi ay caaxaankat la ñuy doon kon woy dafa am ay caaxaan moo tax kon bokk na ci xikma yi tax yonente bi mënta way benn way daa am ay caaxaan ñaareel bi mooy bu woyoon ñu ni dafa fent alxuraan kon bu woyoon ñu ni dafa fent alxuraan أنا بسهم مجيء بجانع بيري لاهم لولا أنت ما لاهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن إذا أرادوا فينا أبينا بيري ويدا مجيء متري باي سايو تري دايجوم أبينا يدخل يدخل مدن أبينا ها وخذوا هذا بزيع في صحيح كن ana nabiyu la kadib ana ibnu abdul muttalib du ay way ndax jublu ci woon way moo tax kon kon yonente bi alayhi salaam munta way ana benn bis da baaraam dina di nàcc ma hal anta illa usbahun damayta wa fi sabilillahi ma laqita waaw wa fi sabilillahi ma laqita di ko wax yooyu tamit duñ ko tuddee ay way in taxfir la in taxfir illahuma taxfir jamma wa ayu abdin laka ma alamma yooyu yëpp duñ ko tuddee ay way ndax moom jublu ci woon way moo tax yàlla joxoon ko alxuraan karim mu gën way gën lépp alxuraan du njabar du seet duy way du lenn loolu rek in huwa illa dikrun lil alamin suñ borom dëj ci wax ci ni ci aaya moo tax mu ne in huwa in huwa nekkul lu alxuraan nekkul lu illa dikrun lil illa dikrun wa qur'aanun mubiin alxuraan daal luy fàtt leer ak alxuraan ju leer a leer joo xam te ni li tunzira ngeen nga xëpp من كان كوهم نك حي دي ادي دوندو ويحق مو ياي نك القول وحجا على الكافرين تي يفر كيب كوهم اب خولم ميغي دوندو بغ لو باخ رك بو دغي القران اب خولم دا ام لو ييك واي اب يفر بو بون موم بو خامي خمود القران خمود لو باخ موم بو دغي القران اب خولم لو ييك دارا خولم لو ييك دارا كوي دوي دوي بون كو غيناو سيم بروم واخ تي ايا 111 واخني اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون suñu borom commencé nag di wax maanaam xéewal yim xéewal doomu aadama xéewal yim xéewal doomu aadama ci jur gim leen gim leen tàggatal jur gim leen tàggatal mu ne awalam yaraw xanaa gisuñ ni an naa ñun yàlla xalaq naa bind nañ lahum ñeel nit ñi mimma amilat tam liggéey ay dina suñuy loxo ñun yàlla an aaman ak jur fahum te ñoom nag laxaa ñeel jur ga maalikun ñoo ko moom jur gi nga xam maa ko bind samay loxo man yàlla subhanahu wa taala jox leen ko ñoom doomu aadama yëmul ci loolu waaye wa zallal naa xaalahum ma jël ko tagatal leen ko toroxal ko ba nga xam te ni xale ba gën a tuuti mën naa jël giréem nga gën a rëy ko yóbbu fu mu bëgg a fa min ha ca jur googa nag am na ci yoo xam ci jur ga rakkoo ca la ñuy war wa min ha am na ci jur ñoo xam te ni yoo xam te ni yàkkuloon la ñuy lekk ngeen ci war na ci lekk wala hum tamit ñeel na leen fii jur ga fi ay njariñ yu bare bare bare bare bare njariñ ye ya mooy der ba ña koy jël di ko lal der ba ña koy jël di ci seenu ñam der ba ñoo ko ay yére ak i dàll karaw ga ñoo ko jël di defar seen i seen i bagage ak seen i modla ak seen i leen ak seen yëpp ak seen yére yi ñu sol wa mashaaribu ak ay naanuwaay naanuwaay ibnu kasir nee na mooy sawma ak soow ma lépp loo xam ne dagan nañu lekk aw yàppam rek dagan nañu lekk naan am soowam dagan nañu lekk am naan am soowam kon sawum giléem ci misaal rek nga xam te ni day faj cancer di faj jabet di faj mboolem feebar yu bon yëpp sawum giléem da koy faj kon suñu borom moo tax mu ne wa masharib ak ay naanuwaay muy soow ya ak saw ya ca ya a lekk afala yashkurun xanaa nit ñi duñu sant yàlla nag ci xéewal yi mu leen defal kon xéewal yi mu leen defal xanaa kon duñu sant yàlla subhanahu wa taala mu wax ci aaya 114 wax ni wattaxazoo ñu jàpp min duni laay ci dul yàlla alihatan yàlla ndax la ñoom yoon saroo ñu leen di dimbali kon am na ñu jàpp yàlla ñoo xam ne dañoo jàpp ñoom ñooy mën a dimbali muy ay xërëm ak ay bàmmeel ak ay xabru ak ay xeer yoo xam te ni ak ay xeer yoo xam te moom la ñuy jëfandikoo moom la jëfandikoo yooyu yëpp nag yooyu yëpp nag xanaa xamuñ ni yooyu yëpp nag xanaa xamuñ ni du leen jëriñ dara te li ci yéeme mooy boo seetloo kiñ jàppee yàlla toujours kiñ jàppee yàlla toujours du nekk koy dund day faatu ba pare ñu da ko jàppee yàlla mbaañ jël xeero wala xërëm nga jàpp ko yàlla subhanahu wa taala loolu kay mooy wane ni kon yàlla rek mooy yàlla ginnaaw yow ki ngay jàppee yàlla toujours ku faatu lay doon ku dul moom yàlla baye bam faatu nga dog ni mo yalla kon kay yow kon li ngay def ñi mee woo kon bo ñi mee woon ba mi dund nga nan ko ngay wax ni mom mo yalla waye baye bam faatu ni ci biir bàmmeelam nga doog ko jappé yalla wala jël aw xéer wala ab xëram jappé ko yalla loolu kon ngay wane yow andok sam xel waye andok sam xel ba mi dund nga koy def yalla ndax ba mi dund la waroon nga man la ma man ka tëdd fa mu tëdd ko gis mu def ben action dang ko gis mu tëdd nga ni yalla la te ba mi dund nu nga ko wax yalla loolu kon xel nanguwu ko moo tax afala taqil xanaa du ngeen xellu laa yastatiuna duñ man ñom ñom ñoo ñu jaamu nasrahum dimbali leen waxum te ñoom nak lahum ñel leen jundun mbolom sota la ñu bu ëllëgee moxdaaru ñu leen di téwal leen laaj kon hasabu jahannam yeen ak ñi ngeen di jaamu yeen ay hasabu jahannam sawara ngeen jëm bu ëllëgee mo tax yow yonente bi falaa yaxasun ko bu mu la tital qawluhum seen wax ji ñi wax kon kuffari ak mushrikuun yi tëkku gi lay tëkku ak yu bon yi ñu lay wax bu mu tax nga tiit yow Muhammad bu mu tax tamit yow nga tiit yow borom xam-xam bi leral diine inna ñun yalla na la mën nañu xam ma yusirruuna lañuy wax ci suuf wa maa yu'linuun ak la ñuy wax ci kaw lu ñu mën a wax man yàlla xam naa ko comme man maa la garanti te xam naa ko rek yow bul bul déranger wu ci li ñuy wax bàyyi leen wax lu leen neex nañu wax ne am jabarkat nga nañu wax ne ku bon a wax man yàlla xam naa ko moo xam dañ koo wax ca suuf moo xam nañ ko wax ca kaw yow bu leen faale ci loola yow Muhammad alayhi salaatu wa salaam ak yow mi nga xam yaay woote ci yaay woote ci diine diine wax ni awalam yara xanaa gisul naa ñun yàlla xalaqnaahu fa ida huwa fekk moom nag nit ki xasimun muy kuy muy kuy xuloo mu binun ci lu bér ah nit de nit de nit de tey mën naa xuloog man nit mën naa xuloog man tey de waaye boo koy bind ci toq ma niyu mu mujj nekk toqum deret mujj nekk lumbu lumbum ndawal mujj nekk am yax ma muural ci aw yaram ba mu nekk doomu aadama nekk magum jëmm ñëw di xuloog man man yàlla tey de mën na ko moo goree di fa ida huwa xasimun mubin tey mu ñëw di xuloog man aaye bii la ko tax a wàcc ñaari wax am na ci waaye benn wax ñaari wax yëpp benn lay firi mooy am nañu ni ubay ibnu ubay ibnu xalaf ci moom la wàcc am ñu ni al am ñu ni muy wàcc al aas ibnu waa'il waaye alakula ñoom ñaar ñëpp ku ñu nekk alxuraan wàcc na ba tey la la la toroxal ndax la lam defoon mooy dafa jëloon benn yax benn yax la tey ci loxoom ñëw di ko xoolal yàlla mu koy ruusal ni ci loxoom naan Muhammad ah yow Muhammad ana Muhammad ñu ko ma ko maa ngi nii mu nga ne yàlla mën naa dekkal lii bu ëllëgee yow daal Muhammad yaa ñeme yàlla rek suñu borom daal koy tontu awalam yaral insaanu annaa xalaqnaahu min nutfa fa ida huwa xasimun mubin yàlla tontuwul yax bi de néew ko yax bi dinaa ko dekkal nag ko yow ci sa bopp xanaa xamoo ni toq man ni bu salte woon nga xam boo xam foo musa laal nit ñi fomp la foo musa laal nit ñi fomp la imam malik bokk na ci istidlaal ni man yi sobe la aay bi bokk na ci waaw aay bi bokk na ci ndax man yi fu laal dañ koy tax dañ koy xas kon mu ni sobe la kon waaye jumhóor muy Shafi ak Abu Hanifa ak Ahmad Shafi ak Ahmad ñoom nee nañ du sobe ndax ci lañ bind aadama waaye li maali wax tamit wax ji dëgër la li wax ni mani lu sobe sobe la euh, barab bi du barabu fiq nee na kon wa daraba lanaa masalan wa daraba mu dóor moom ans ibnu waayil wala moom ubay ibnu xalaf lanaa ñeel ñun yàlla masalan ci am misaal wana si mu fàtte ne xalqahu bindam nga moom mi joxe yax bi de naan yax bi tax yàlla mën na ko dekkal te moom fàttewul fàtt na ni mu amul woon yàlla bindal ko comme daa amul woon yàlla bindal ko kon kay ki bind lu amul xanaa amal lu amoon ba pare moo gën a yomb ci قال موهن من يحيي العظام كم من يحيي وهي وهي جمع يحيي رمي من دفع دفع دفع رابو يحيي رابو كم هو بين بين بين بين بين بين قل وحل محمد يوني لين يحيي هذا نهودن الذي يلا ما خم أنشأها موكو سسون بندك أول مرة بندك بندك موكو بندون سسكو سسون لسوس سيمام تأمي وان waxoo moom yàlla day bi kulli xalqi ji bépp bindeef la xam yàlla bindeef bi doomu aadama ji xam na léppam xam na nam koy bindewaat féppi karawam yi mu amoon sax bu koy dekkeelaat karaw yooyu dafay day mataat baaraamam yi sax ni mu jëmale woon noonu la ko suñu borom yemale woon bu ko bindaatee kallaa bal euh, bal balaa qaadirin ala an ala an nusawiya banaanahu balaa qaadirin ala an nusawiya banaanahu yi sax nam tolloo woon nam sulante woon man yàlla su ma koy dekkeelaat noonu lay mayaat kon allazi mooy yàlla ba nga xam jaala def na lakum ñeel leen min ash-shajaril axdar ci garab gu naaran sawara so xamanteni fa ida antum te fekk booba yéen minhu ci garab ga tuqi do ngeen di xabbu garab gu wert gi moy lan bo gisee garab buy buy dundu day wert toy xip nga xam te ni boo ko du tak waye tay bu demen ba de suñ borom da koy def am mat nga jël mat moma tal ko comme na nga talé mat mu toy mat moma tooyoon nga dem tal ko ba mu woowee non la suñ borom mën a do adam tamit bu bu ngir mu kon kii man loolu kay jël ak garab mu tooy jël ngooñ mi mu tooy xëpp nekk am ñax mu jékki-jékki nekk nekk am matt suñ borom mi def loolu kay xanaa wax dëgg yàlla war na maa dekkal doomu aadama fa ida antum minhu tuuqiduun te ci garab googu yéen taal bi su set di ci lakk di ci lekk di def li ngeen def kon kay ki leen defal loolu ngir xéewalal leen kon mën na nañoo defaat loola ngir dekkal leen fay leen fay la ngeen doon def wax nañ ci yeneen wax waaye firi bi moo gën a leer ci cherul axdar moo tax bu wax ci bay aaya ni alam naxlukum fa ja'alnaahu fi qaraarin makiin ilaa qadarin ma'luum fa qadarnaa fa ni'mal qaadiruun waxaa ne innaa xalaqnal insaana min nutfatin amshaajin nabtaliihi maa ngi bind doomu aadama ci fépp man yu mu salte moo xam te ni laal nga faxas ko doo nangu sax laal la ci laalal bind yow doomu aadama kon man yàlla maa lay dekkalaat bu ëllëgee lépp lu amoon ci yow mu mottaliwaat ko kon Aas ibnu Waayil wala Ubay ko yàlla tontu ko kon yàlla boo seetloo mbirum dekkal ak mbirum tawxiid da ko fonk saa yoo ci waxee moom mooy tontul boppam bu tawxiid wala dekkal تسور ماشي تدل بهم برب سنة نحكي بند تكتي لونك بند بأجل ولا بيعني بخلقه يعني تسور نتجمع لون بند سهم فيكون ده يسون سامن نجاسون واي سون يسفر يا وقت ده هني دوكل دوكل كلام مرة فوق واحد لون رسمي برام تنتلا مو هات شيء آية بيداني شيء آية كتربن تيه كتربن دكتور درام آية موجو أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس نحديت الذي كان خلق بين السماوات السماوية wala arda suuf sa ndax déet moom bi xaadarin muy attan ala ay yaxluqa misla mu bind ñu mel ni ñoom asamaan suuf ni mu rëyee yàlla bind ko ndax dana tële ci moom mu yàlla ndax dana nekk néew kattan ci moom muy bindaat lu mel ni asamaan suuf képp bay bindaat doomu aadama bi xam ne moo ci lépp lu mu bind balaa yàlla rek na loolu waxoo moom yàlla de alxallaaxu mooy aji bind ja al mu jo aji xam ja yàlla mooy bind moo xam innama amruhu bindam boobu nag ak bind boobu muy bind ak xam gi mu xam mbind ga bul jàpp ni day sonde am yu ñu dajale dajale deret ji jël yax yi fee jël lii fee ji fi tarki ko mu nekk si déedéet du loolu demee noonu kun fayakoon rek ci lay nekk innama amruhu naka lépp luy mbir moom yàlla isa araada bu bëggee shay'an dara an yaqula ndare bu da koy wax ni an an mu wax ko ni kun nekkal fayakoon mu daal di nekk fasaas moom baynal kaafi wan nooni rum naa shukuur allazi bil kaafi wan nooni ma ma shaa yafaalu min la suñ nee na yàlla moom lu ko neex da koy def ci diggante kun fayakoon bil kaafi wan noonu ci kaaf ak noonu rek macha ay fan lu ko neex te koy def min baadin wa mag noonu ci lu nëbbu ak lu feeñ lépp lu mu war a dogal war a rek kun lay wax moom yàlla fayakoon moo tax suñu borom bu àddoo ba war a wax rek malaaka yépp dañuy xam ba ci jibril buñ xamee ba jógaat daal ne maa qaala rabbukum qaalul xaq daan dëgg rek la wax de xamaguma lu mu wax de man jibril sax yéen seen jawriñ waaye xam naa dëgg képp lay doon waaw ndax moom mooy ku kawe ki mooy ku màgg ki moom yàlla subhanahu wa taala mooy ku rëy ki kon loolu lay leeral foofu kon innama amruhu ida shay'in ay yaqulu kun fayakun su bëggee dara am rek danaan ko amal loola daal di am fa saasa waaye nekkul day am ay étapes yu muy def ak am ay effort yu mu cay def di ci sonn déedéet wala mu yaxya bi xalqihinna yàlla du sonn dara ci bind moo tax mu wax ci benn aaya ne la xalqu samawaati wal ardi akbaru min xalqi naas bind asamaan a suuf moo gën a rëy bind nit ñi fop te man bind naa bind naa asamaan a suuf ba pare kon kama bada akum taudun nii la suñu borom bindee woon rek noonu ngay dellu si waate bu ëllëgee moo tax suñu Tuubaa ni maa shaa kaana wa maa lam lam yasha abadan lépp lu suñu borom bëgg mu nekk waaye lu mu bëggut wa maa lam lam yasha lam lam wa ko neex mu am لوكو نيهو تاميت موم بروم بي سبحانه وتعالى دو ام موتاخ مو واخ سي ايه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بيم تقرير التوحيد تقرير مو يوني يونت عليه الصلاه والسلام تقرير ديك واخ ليب با اغال نك داني فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سايو يالا ديخالي روي ريك دا تودو سلام يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر ونجوم سخر من امره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين تودو سلام subhaanallahi xeetu tumsuuna wa xeetu subhuun su ngeen di xëy guddi gi jeex na mu tudd ak sellam su ngeen tëdd bëccëg gi jeex na mu tudd ak sellam lépp lu rëy lu suñu borom def ba muy jeex rek day tudd ak sellam ngir màggal boppam moo tax mu ni fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in turjaun sellal naa laabal naa ci ñuy bokkaale kooku nga xam te nii allazi ka nga xam te nii bi yadihi ci loxoom la nekk malakuutu kulli shay moomeelu lépp ci àddina wa ilayhi jëm ca moom nag turjaun li leen delloo yéen nit ñi yàlla mom nga xamne mom bi ñëpp kon mom mom lépp te ci mom ngeen delu wat ni doomu aadama yi kon kon résumé ne wax ji moy kon da ngeen delu wat ci yàlla mu dekkalaat leen bu ëllëgé kon dekk jërul weddi kon motax tax ahlu tasawuf dañoo xaaj alam yi ak mulku ñu wax ni alami alamul malakut la alamul mulku nee nañ alamul ne malik fal malik fal maliku wal malakut am nañu ñoo bokk lu ñuy firi comme rahma ak rahamut comme rahma ak rahamut ak rahba ak rahabut ak jabra ak jabr ak jabarut waaye nag am nañu wax ni aalamul ajsaad yaram yi ña nga nekk ca malakut arwa yaram yi ña nga nekk ca mulk ruux yi nekk ca malakut moo ñu xawaa mulk ak malakut yépp kon ahlu tasawuf wax nañ ci ay wax yu baree baree bari yu xam ne bokkut te fii du barabam ndax fii barabu tafsir la ala kulli xaal daal euh, suñu borom subhanahu wa taala li muy taqrir fii daal ci saar bi mooy tawxiid ak yónni gi yónni yonent bi alayhi salaatu salaam ak tamit ak tamit euh, tawxiid ak yónni gi yónni yonent bi alayhi salaatu ak tamit euh, dekkal ëllëg euh, nit ñi indiwaat leen atte leen kenn ku nekk mu fayal la nga yeyoo ndax bu fekkoon dekkal amul suñu borom day manqué ndax ñi doon tooñante kon bu boobaa du a wax ni xar mi amudoon ay bëjën sax dañ ko defal ay bëjën mu fay yu mbëkk ga fa xar mee doon mbëkk buñ paree nag ñoom ñëpp ñu def leen suuf daal di leen di yóbbuwaat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 断了梦。